Euh, ñaareel bi euh, monsieur le ministre moy affaire wu Bougazé ah t'iluma lu dégg xam nee dañ ko japp flagrant délit damaa xamul nak tax ñu bayiko mu déllu est-ce que lool ce su que lool nak lutax ñu def lool ñetteel bi monsieur le ministre moy affaire drogue bi laajoon ministre de l'intérieur faléwuma laaj ministre

justice bok na ci lu ëpp capital social Afrique sax Égypte la loi de Mat fa euh, donc Cheikh wax nañu ko nañu ko justice moom moo société bi comportement yi moom régler la question de la confiance ci la société euh, euh, même moi-même, bu confiance donc suis justice am suis